capitaine Omar Touré ñu tuddoon ko lu baree bari mu yoroon enquête bi ñu xam ni moo doxoon ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko euh, ñu daxoon ko mu jógee foofee ca gendarmerie ñëw continuer am njàngam ba lu yàggul dara école bi la di EAM jël ko mu fay jàngale ñu gis barki démb ñu dax ko foofu ci école boobu askanu Sénégal taxaw ngir jàppale ko yaakaar naa collecte bi ñu ko doon defal yegg na ci 32 millions euh, luy sa gis-gis ci ku ñu rajee daqaat ko ci école ba mu doon jàngalee askanu Sénégal taxawul ko boppam ko ku ñaari at yi ñoo la gàddul sa salaire. lu tax xanaa loolu am na fu mu commencé lu mu commencé parce que koo xam ne dañ ko rajee rek dàq nañ ko fi lu mu def bañ raje ko danga ma naan lii la def ak lee ak lee ba ñu ko fa mu nekkoon léegi nag Sénégal ñu ngi dajale pour dimbale ko ma doo xam ne may wax. waaye nag tëb rek dugg ci loolu du ma dugg ci loolu. parce que moo seere woon dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. waaw enquête bi ci jiitu woon audition bi ci jiitu woon moo ko defoon. waaw ñu bëri yi nga xam ne moo génnoon ba nit ñi askan wi mhm. ko sanctionné parce que PV yi moo ko yoroon. ah ok ah, loolu ngay wax warul génn ti moo ko yoroon ah lu eh, lu lu nekk secret dañ koy denc. lu nekk secret dañ koy denc. boo waree génn ñu génne ko parce que gis nga nañ leen waxtaan rek réew mi du réew moo xam ne lu la neex def ci njub la ñuy tege su fekkee yaa ngi yor ay PV yi yi jëm ci ci ci ci ci àtte mais garde ko bañ soxla ko buñ ko soxlaa laaj la ko nga jox leen ko teg ko ci dëgg teg ko ci yoon teg ko ci dëgg teg ko ci yoon jox leen ko su fekkee nag àtte ko nga bàyyi ko waaye nag defar ay PV nga xam ni lii aji saara ko moom ak sonk muy PV nga gaaw génne ko loolu du dëgg nañ ko garder moom liñ ko bëgg def loolu du ko def bu ko neexee du ko def garder euh, euh, kaay jox ñu ko ñu nëbbu ko déedéet euh. loolu moom du ko d'accord jox ñu ko ñu nëbb ko déedéet jox ñu ko ñu denc ko déedéet moom kay moom moo doon def àtte bi moo yor PV yi nañ ko bàyyi suñ ko dàqee mu génne PV yi bu ñu ko dàqee rek mu génne ko wan leen ne lii laa def lii moo tax ñu dàq moom mu jeex waaye tànk dàquñu ko loolu waru koo def waaye bu ñu ko dàqee nag mu def noonu. mais mais li tax loolu noonu sax kii di ci yow di laaj ci question boobu noonu ginnaaw ba mu bañ ko rajee foofu noonu pinir ko tëj ko sax 2 mois ba ba rajee ko fonction publique li tax sax ñu gën koo rajee mooy dafa wax ne dafay dafay dafay jugee gendarmerie te sañu ta jugee gendarmerie fekk am amoon waaye ba mu fa jógee dem continuer am njàngam ba ba ba am lu muy lu mu war a mën a déposé feneen foo xam ne privé la yaayam euh, ñëpp xam nañ ko di école boo xam ne dafay jàngale affaire euh, école privée la léegi nag ñu jël ko ci altine bi passé def benn photo ñu bëri nee nañ pression bi ñu jógee ci kaw nguur gi dal ci directeur école bi moo tax bu directeur bi ne ko nag euh, nga bàyyi ndax ñii ne sax nee redresse lañ ko indi comme ni loon PDC bu groupe des médias ba tey jii moo tax mu mujj dagal collaboration bi mu dagaat collaboration bi bu ko dagee moo xam man daal liggéey su ma koy def daal liggéey ngir yàlla soo ma dàqee ma dem waaye du ma def mukk lu jubadi ci àdduna du ma def mukk lu jubadi kenn mënu ma koo taxal lu yàlla bëgg rek lu yàlla gërëm daal dinaa ko def lu yàlla gërëm du ko def atteeg ñàkk atteeg yëpp a ci su fekkee ne nag yow da ngaa wàcc yoon dañ lay teg ci yoon boo waree yoon nekk ñeme ko ñeme rek li ngay def gis nga yàlla dama leen koy wax bés bu ne yàlla rek a fi ne yàlla yi njëkk moo mujj mooy muy lépp ñun ñi ñëpp yàlla ñu bind lu ñu am moo ñu ko jox bu ñu lekkee sax moo ñu jox lekk bu ñu naanee moo ñu jox naan yàlla mooy lépp soo jëlee yàlla moomu nag nga def ko sa kanam jeex na atte beeg du atteeg fii la ko génneeg PV beeg dañ koo dàq ak yëpp yëpp ay wax la rek li jaadu daal mooy soo nekkee njub nekk nga ci njub soo nekkul ci njub nekkul ci njub boo nekkul ci njub nag wane ne nekkuma ci njub ñu génn la soo nekkee ci njub nga wan ne ci njub laa ni mu jeex parce que li ñuy def ay tappale la lépp ay tappale la parce que Sénégal dañoo tàmm wax lu dul dëgg dañ ko tàmm tàmm nañ torop torop torop wax lu dul dëgg ci wax lu dëgg baaxul fa waylun lil mukazzibiina yàlla nee na ñiy fen yëpp safar lañ jëm kon looy fen looy fen ci àdduna amu ko voilà ayca boobu Euh, oustaz ñu ñëw ci wàllu diine ji dugg ci koor gi euh, ñuy faral di gis ay plateau yu bari ñu koy amal ci koor gi di jëlal ay boroomi xam-xam ñu gis nag fan yi ay attaques yu xaw a métti yoo xamante nii képp koo xamante nii yaakaar naa ne diine sax na la tuuti dina la xaw a naqari muy benn borom xam-xam bu génn dal ci kaw imam Buxaari yi ak euh, muslim kane lépp loo xamante nii solo nañ ko ci ay xadis ay fen la dégg nga wax ji ak it bu dee déggoo ko woon ba nga ko déggee mujjee gis nga koy doog dégg tey de léegi nii laa koy doog a dégg waaye amul solo. Buxaari ak Muslim lu ñu wax ay fen la ay moom moom jegewu leen kon kan moo wax dëgg Buxaari ak Muslim lu wax fen la kon kan moo wax dëgg loolu lañ koy laaj bu Buxaari yi lu mu wax doyu ko d'accord naa ci muslim lu mu wax doyu ma d'accord waaye lu ñu wax ay fen la ah loolu d'accord ma ci Cheikh Hadji Malick dafa wax ne ku jàngul ñetti téeméeri daara ak juróom benn fukki daara ba mu jeex daara islam sharia nee na ba mu jeex lépp sañoo weddi kenn sañoo weddi kenn lu nit wax rek gëmal waaye boo weddee du baax wéy di du baax Buxaari ak muslim mag ñi fonk nañ leen sëñ Tuubaa fonk na lool Alaaji mali fonk leen lool maam Bu fonk ñëpp leen fonk kon nag bu benn génn génni weddi li ñuy wax ak aussi weddiwu ko sax ci teggin daf ne lu ñu wax fenn la yow yaa ma ko wax yow yaa ma ko wax lu ñu wax day ay kàcc la ah, loolu moo xam bu fekkee lu buse lu lu Buxaari yi wax ak muslim ay fen la su dee dëgg la dana wóor su dee dëgg la dana wóor bu dee ay fen la dana leer bu dul ay fen la dana leer nañ bàyyi yàlla rek yàlla moom mu ngi fi bu dee ay fen la balaa déwén dana ko gën a mën lool ñu xam ne kon muslim ak boo buxaari dañu doon fen su dee nag dëgg la ñu nekk li ñu wax dëgg la dana feeñ ci moom moom nañ seet rek nañ seet rek bu dee dëgg la wax baax na su dee li muy wax du dëgg baax na waaye daal nañ moytu mag ñi nañu moytu mag ñi nañu moytu mag ñi mag ñi daal bàyyi leen nële moo gën waaye bàyyi ba mag ñi nga nekk ci seen der nekk seen lépp loolu doxul nañu moytu mag ñi nañu moytu mag ñi moytu mag ñi loolu daal laa ci wax oustaz ba léegi nii dañuy taxaw ci wàllum comme sànq li nga wax ni maanaam ñu si ëpp tey jii nii dañuy tuumal nit gisuñu ko ñu gis na ci biir semaine bi nii benn politicien boo xam ne ñu koy wax Ousmane Nawel Dieng euh, ñu tuumal ko ne dafa am benn vidéo sax bu mu doon tëdd ak secrétaire am sax bañ bañ bañ filmé ko ba ba ko publié waaye gis vidéo yi ba léegi gisaguñ ko bañ jot cee jàpp ñett euh, ci ci ci ci ci weeru koor waaye ñu bëri tey jii nii sax ñoo ngi wax ne ay léegi réew mi sax kenn warutu kenn ngir ay vidéo wala ngir ay enregistrement est ce tey jii nii diine loolu la santaane dafa mel ni tey jii ñu bëri tey dañuy lëñbatu ay nit te est ce diine santaane lañ waaw xam nga loolu diine santaane wu ko diine santaane wu même même même sax nga gis nit yow rek rek yaa gis jar yow la sutur yow la xaw yi sutur man satara ak xaw fi dunya satara fi axira képp ko suturaal sa mbokk julli ci àdduna soo àllaaxira yàlla suturaal la te kenn deful lu jub